naan bikum xibaar yu garaaw xibaar yu doy waar tuuma yu jéggi dayo moom la maître Moussa Diop wax jëmale ko ci njiit réew mi Macky Sall Aly Ngouille ak Mimran bés bi yéene kaay moom fa mel ne fa jàpp gémmiñam ndax jaaxle ndax xibaar yi fa garaaw ba jéggi dayo yaw seetal démb fa janoog taskatu xibaar yi moom maître Moussa Diop candidat joxe xibaar yu yéeme ci wàllu exploitation miinu jamaa maanaam fa taqal njiit réew Macky Sall Aly Ngouille ak Mimran ci wàllu wi ni mel contrat yu jaarul yoon ak jamaa bu ñuy sulli jël xaay ba di ko séddoo daje yañ amal ca France ak lettre yi nga xam ne dox na diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran ak yëpp la wax ba pare nag fa caa yokk na li may wax nii faa yor firnde yu leer nañ te maa ngi xaar yoon woolu ma ma joxe firnde yi libération ne non lii kay fa garaaw hab dil bu xam ci ab contrat mine moom la maître Moussa Diop wax te fa caa taqar ripp njiitara Macky Sall Mimran ak Aly Ngouille Ndiaye ne lu ju njaag ñoo njaag ñoo amal li ni mel yor yor yéen kaay ne moom kay fa ay jamaa gaa yi lijjanti ko ci secret fii Sénégal ba tax Bougane Gueye Dany ne maa ngi ñaawlu scandale tooxi doona bu mag boobu wàllu jamaa ko waxee ci l'évidence yéen a kaay waa grand place ne Bougane Gueye kay fa wax ne lii moom fa war a leer ndax lii fa garaaw buñ ko bàyyi noonu mu jàll ci njiitu réew moom la ci tudd ak ministre Aly Ngouille Ndiaye Mimran turbine a kaay ne Bougane Gueye amati na dëgg ndax yàgg naa wax ca 2021 ba léegi na am na ay jamaa yu ñu sulli fii Sénégal ca bër gànnaaru réew ma maître Moussa Diop démb mu wax lii kon ke mooy firndeel li quotidien yéen a kaay ne hëy faalan di wax leen maître Moussa Diop jamaa yooyu muy wax foo la dara du ci dëgg ndax Aly Ngouille Ndiaye weddi na ko nee na kii daal fay gént di wax waxi ko daanu ci seret Ousmane Cissé nekkoon fi directeur des mines nee na amul fenn fu ñu sullee jamaa fii ci Sénégal ko wax ko dëgg info yéen a kaay na maître Moussa Diop kay fa sulle ay mbóot yu garaaw waaye Aly Ngouille Ndiaye fa ko weddi doonte maître Moussa Diop moom nee moom am na ay firnde yu leer nañu suñ koy oo déglu ko mu joxe ko démb sax joxe na ay détails ak njiitare ba nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye boobu mi ngi nekk ministre fa ko bindoon Mimran ngir wax leen ne am nañu sañ-sañu sulli jamaa boobu lettre bi premier décembre 2016 la woon ak yeneen i leeral yoo xam ne def na ko moom maître Moussa Vox Populi na njeextalu ay bés bii galgal politique daal moo ci gën a bëri maître Moussa Diop sulli contrat yu doy waar yu jaarut yoon ci wàllu jamaa ak tuuma yu garaaw yi nga xam ne fa ko tuumal njiitale Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran loolu nag fa war a leer <laughs> leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne suba ci talaata ji la tribunal bu Ndakaaru di attee Ousmane kon ci la ñuy xam ndax dana mën a bokk ci wote yi wala du ci Sonko si du quotidien moo ñu ko xamal yéen kaay bi nag fa caa yokk ne audience suba bi nag fa bëri ay risque de maanaam lu nekk mën naa xew de indépendant yéen kaay moom na tey ci altine ji ci la ñu ubbi déposé candidature élection yi 2024 yow seetal le 11 décembre bii ba le 26 décembre képp ku bëgg a nekk candidat fi mu toll ni ubbi nañu conseil constitutionnel pour nga dem joxe fa sa candidature yoor yoor yéen kaay moom fa ñoo xamal ne tarix ramadan fa wax na fay porte plainte Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne fa fay wax ay milliards yoo xam ne fa ñoo njort na réewum Qatar fa koo jox Ousmane Sonko ak yu ni mel Tariq Ramadan nag nee na loolu du dëgg ay sos la te moom fay porter plainte yooyu na ginnaaw bu Matar Diop ak Cheikh Yérim Seck génnee joxe xibaar yi fa la na weddi yéene kaay bi fa caa yokk na Pape Alé Niang moom fa bind sax ab leetar buuru Qatar ngir sàkk ci moom ñu leeral yëfi Mimi Touré moom fa défendre Ousmane Sonko jàppal koy tànk ne fa yomb lool toog rek du tuumaal nit ci wax yoo xam ne waxu caaxaan-caaxaan la mu ko waxee ci la mandat yéene lañ am may wax ak yéen njiitëram Macky Sall ma nga Qatar te buuru Qatar émir ba dalal na njiitëram Macky Sall ci audience ñu waxtaan diggante bu rafet jëflante bu ratax ci diggante ñaari réew yi le mandat yéen a dëggal ko na ko waa Qatar yi fa ñuy amal ab forum Doha ñaar fukkal bi yoon ak benn njiitëram Macky Sall fa dem fekke ko yëkkati fa kàddu yu am solo la def moom njiitëram mi rawatina lu jëm ci plan Sénégal émergent bi lii yéen a ay professeur fa ñoo ñaawlu tëj gi nga xam ne fañ koo tëj université bu ndakaaru di sàkku ñu ubbi ko ca nam gën a gaawee leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne Amadou Ba xamal na mitin bu rëy bu mag ca Paris la France fexe na tamit ba benn bokk yaakaar ànd fa nekk benn laas yéen moo ñu ko xamal GP yéen ne Amadou Ba kay fa wax sax ne moom mooy gàddu ndam li 2024 l'évidence na leen faa ci yokkal Abdou Karim Sall fa wàccee France de bu mag ay ministre ñoo àndoon ak ñoom fa ñaawlu li ni mel source ay yéen a kaay na leen voilà gis ngeen meeting boobu ak ministre yooyu nga xam ne fa dem France ànd ak Amadou Ba fa mel daal ñii fa ñoo léegi njiitiram Macky Sall ba lu leen wax duñ ko def wala faa xamut lan la yaaw seetal conseil des bii passé njiitiram Macky Sall fa wax ministre yi na leen lambar lambari gi ngeen nekkee di dem bitim réew na dakk faa bëgg ngeen toog ci réew mi waaye fa seetlu ne France gële a ne Mamadou Ibra Kane journaliste mooy ki fi nekkoon candidat te fa mujj wax na bàyyi na hôtel ba nga xam ne la Amadou Ba dal France moom fa la dal yamut fa de moom Mamadou Ibra Kane fa ànd photo ak jigéen ñi nga xam ne mooy jigéen benn bokk yaakaar ya ñëwoon ca meeting ba yéen a bi na waaye yéen loolu moom teewit xelam yëf yi fa tombee wala bokk xam na leen lu nekk ci suuf réew mi yéen a kaay fa jox kàddu Mimi Touré mi ngi sàkku ci wote yi ñu bàyyi képp ku bëgg bokk-bokk waaye sénégalais kenn waru leen tànnal président Boun Abdallah Dionne ne man de sama parrainage bi pare na matal naa sëkk faay artu nag gaañu ñu bañ maa bloqué man fa mel ni daal ci pexe la nekk mi ngi liggéey ci ni mu a yore réew mi fexe tamit am coalition bu mag wal fajir yéene kaay ne Anta Babacar Ngom moom moo nekkoon avocat wu artisan yi nee na bu jëlee réew mi fa leen di taxaw ci budget cinquante milliards moom fa xamal tappale sàcc xaalis gu takkarnaase nga am ci crédit mutuel bu Sénégal ci dossier ndaw suusu ñu joxoon fi xaalis boo xam ne jaarut yoon tàggat yaram ay waay Barcelone mbuqi nañ ko Girona daal fa fekki Barça dëkkam di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñeenti bal ci a moom fa xamal ne professeur Ousseynou Diop directeur bu CROUS université Sine Saloum fa jàppale bu baax waa zone neuf bu caare ndax fañ koo parrainé woon seen final ba mu dem fa waaye kàngamu benn bokk yaakaar rek fañ kaa téye woon lépp ndax rafetlu taxawaayu professeur Ousseynou Diop maire bu siba sor ca jàppale ga muy jàppale ndaw ña ci wàllu xëy ak yeneen yi ni mel loolu baax na li baaxut ñaaw ba yegg ca lool l'observateur moo ñu ko xamal yaw seetal xam benn waay buy jaay boutique léegi mu jël jabaru jàmbur di def ak yëfu saay-saay ba pare nag daal di filmer seen bopp léegi